mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Serigne Touba tey ci kaw suuf ataala llaahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu kon ci ndigalam lañ ñëw fii di leen jet li kàddu yu bàyyi ko ci moom ci këram gu tedd bii mu nekk ci biir nga xam ne yërëm ko ci coono bi tax waaye dara duy ko ci woon lu may toogal boppam ñépp gis ko ndax li xew tax muy kàddu yoo xam ne nag ñu ngi koy jëmale ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yu murit yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi weesu di gan ak rasulullahi sallallahu alayhi fonkoon ko lool daa ko dundalal boppam ak jëkk ahiyatu mawlidi nabi min asasi ba ci njaareem kon ñi ngi ñaan lim ci daale ci biir jës bu ñëpp jàng ko dégg ko te xam ne mën naa yéwénal suñu mbir ci àdduna ak alaaxira la ca dellu kuwaat mooy kàddu yu masaw yu ci mbooleem koo xam ne rek loro nga ci xéewal gi nga xam ne suñu borom moo ko wàccee ci kaw suuf muy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee nag képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi leen masawu ci loolu te di ko ànd ak yow bu baax a baax a baax ngir xam ne bu soñoon képp ku dëkk ci dëkk bi rek jàmm nga fi nekk waaye nag nañ xam ne lu baax mu te Touba nag moom la Serigne Touba waxoon ne daa waxoon ne ku fi sam xel indiwul saw xel dina la indi kon xam na ne ñëpp dañoo gàddaay seeni dëkk ngir tumuraanke ak jaaxle ak bëgg dëkk ak sëriñ bi kon bu sañoon ku fi dëkk ku ne ci jàmm nga fi nekke ci teraanga rek nga fi nekke waaye yàlla suñ borom ci boppam nag moom ay dogalam te kenn du ko xëccu moom soob mu def ko te xam ngeen ne moom moom mii borom liggéey bii di sëriñ bi xam ngeen nekk na ci Gabon samaaniya xijajin illa xalilan lu jege juróom-ñetti at muy sotti ko ci moom ab taw kon loolu ku ca xool rek lu metti metti métti métti danga am xolub jëm ko moom waaye sëriñ bi nag nee xam na ne taalibe yërmaane jëm leen ëndal mooy la sëriñ Tuubaa waxoon rek waloo ci maa xil ni ba kenn du fi dikkee njàqare moo tax mi ngi masaw bokki taalibe yëpp ci lii xew ànd ko ñoom ndax lii kat xeexoo la boo xam ne bayut kenn bayut kilifa bayutub taalibe bayut kenn ñëpp la dal seen kaw ndax kenn ku ne lañ ci yëgal sa bopp mën naa naa mën naa wax ne mën ñii jot li kàddu yi sax dañ maa mujj jël si oto waaye sama oto sax mënta génn sama kër kon ñëpp la laal daal ka gën a suufe ba ci gën a ka gën a kawe ñëpp ko yëg mm-hmm. jumaay Tuubaa ji li ko war gis ngeen ni meloon kon mbir la mu wàcc moo xam ne suñu borom nag boo koy ñaan la ma doon wax démb rek te suñu daal waxoon ne yàlla boo ko ñaanee la nga gën a bëgg lay seet la nga gën a bañ boole ci kon nag sëriñ bi nee na taalibe yi xam ne mettit bi ñu nekkee ak tumuraanke gi ñu nekkee ak jaaxle gi ñu nekkee waaye nag bu ñu xoolee ci jëmmam ak yërmaande jëm ñu ànd ëmbal rek nañu wóor ne yàgg-yàgg daañu tàggu moom kon loolu mu ngi ciy dalal xel ñëpp. te li ko ci war fekkoon fekkoon na ko ci waaye da koy gën a dolliwaat kon nañ xam ne sëriñ bi dafa wax ne ci biir loolu nag sëriñ tubaa dafa am lu mu digaloon taalibe bi bi muy digle jumaay Touba ji waxoon ne ku ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett la ma ci ndénkaane yi dafa waxoon ne lii ma leen di digal nag fu waa jëm nag fu yu bare mooy lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bi na ngeen ci góorgóorlu seen kéemtalaay def ca la ngeen man ak li ngeen te lu ngeen ci mën fu ci seen doole yem ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam ko sell te fu ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sa ijaalullahu taala usri yusra daana trikk nag maa ngi leen di wattandiku loolu lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seen ajo yi dañ leen xañ seen gor xañ leen seen xajamal seen xañ leen seen jom tilimal seen ginnaaw. mooy mala soob lu jiitu ci la koy xajee mooy ñàkk mala soob kon taalibe yi lool loolee lañ topp baraay bi ñëw Tuubaa ndigal la lañ topp ba jumaay Tuubaa ji ñëw ba nëgë ni loolay woy moo tax lu mu mën a doon ak lu mën a xew ji suñ biir itam balañ caa di xaar kenn nañ ko tàmbalee ji suñ bopp ba fuñ ci mën a yem ko ñu cee fekk fekk suñu ca loolaa waral nag sëriñ bi ci yéen maa dem wax ne liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañu ndax ndox mi ñi dugg nañ seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mootuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon dama juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sa joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ñu ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu toll fa ak ñoom mu ne kon na joxe ñaar téeméeri million bi mu ko génnee itam ngir bëgg ñi ñi tàmbalee ko ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi kon sëñ Abiou mu du Mamadou Fadil mi nga xam ne moo jiite daayira Touba ci kanam dana jox ndigal sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mu wax ci turam ndax sëriñ bi xam na ne fekkoon na leen ci ñu nekk ca joxoon na leen ci ndigal bi ak waaye ña ngi ci woon kon dafa def genn kuréel goo xam ñoom ñett ñi ñoo koy seq sëriñ Youssou Diop bu daayira Hizbut Tarqiyyah moom itam mu ànd koog ñoom ndax baat bi ma ci sëriñ bi tegal dana ma ñoom de lépp lu jëm ci organisation ñu ci bëgg rek mën nañ ko ba ca ñetteel mooy sëriñ Abdul Ahad yàlla def na bi ma sëriñ bi di woo fi laa fekk sax yëgoowuñ bi ma waxtaanee sëriñ bi ba noppi mu ne moom kat daa mel ne lu mu noonu sax bu yëkkati ma waaye dama noon naa bàyyi ba gis la ba ko door koo jox door koo bu ñu ko woowee sama kanam itam laaj ko mooy mu wax ko ne ko dama doon laaj ci ndigal ba xam lu ma ci war a def. xool naa ba gis ne war naa am lu ma juróom-benn fukki millions yoo xam ne dama mënees ko jënde ab ceeb ak ak diw ngir séddale ko nit ñi ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen biir ba tënk ko sëñ bi moom joxe na xaalis bu noppi waaye ginnaaw bu loolu jàll yi nag ñuy soññ bokk taalibe yi murid yëpp ak képp ku bëgg lu baax taman cee jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ndax lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon jihaad ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp bi naa ne ngi jege taalibe yëpp lépp loo leen waaye mën a dimbalee na ko def bu mu ci xeeb dara bu mu ci yem dara ku am kër ndax xam ngeen ne màggal Tuubaa màggal Tuubaa gi jàll na màggal Tuubaa gi jàll na ndegam màggal gi jàll na nag kër yu bari seen borom néewtuñ fa kon nag rikk waay ña nekk ci ña moom kër yooyu yaay ak lu kër ga rafet rafet buñ ko mënee jël aale ko ngir jëm Sëriñ Tuubaa te xam ne kat yonente ba mu gàddaayee Makka dem Madina muhaajir ak al ansaar ñëpp xam nañ ne dañoo ñii dañoo génn seen kër joxe kon nag nañ xam ne ku def loolee itam daa tabbi ci biir loola kon ku kër goo xam ne tëj nga ko te kenn néew fa. war nga ko mën a aale ñaari weer wala ñetti weer mhm. bu ko defee mu jëriñ ñëpp ci biir ñoom seeni xalaat fu ñu leen a defal ay tànt yoo xam danañ fi man di nekk ku ku miir sa miir te miir ba da koy denc rek ñu ñu def fa ay tànt ngir nit ñi mën faa nekk ndax sëriñ bi ci wàllu boppam moom xalaat na ci lotissement bi mu jël def ci yoon Touba Belel dana fa jël diir lu yaatu. tabax fa ay kër def ko addee Sëriñ Tuubaa mooy ko nit ñi ndax xam na ne am na ci ñoo xam ne tumaranke nañ tumaranke goo xam ne boo leen génnee ci ndox mi ba bi jeex bu nawet bi desuwaatee fa leen di fekk ndax dañoo dëkk ci xur yoo xam ne du fu nit war a dëkk hmm. loolee tam am na ci xalaatu boppam boo xam ne incha allah bu nawet bi jàllee wala feeg nawet bi jeex dana ci jublu tabax fa ay kër yu bari def ko addee Sëriñ Tuubaa hmm. kon loolu itam lu ci waay mooy def rek ñaan xam ne lépp moom lañ koy defal waaye lu ci waay waaye def Sëriñ Tuubaa lu koy defal te Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ku ma defal loo mën ma defal loolu loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la jom kon nag lu ci waay defal nga xam ne pay ga Sëriñ Tuubaa gawu seqal kon ñu ngi jeexal foofu kaddu yi di jox Serigne Abib mu jox Serigne Abdou Lahad ñu àggale kaddu yi ci des asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi